askan yu yeewoo ca Ndiassane extension bu Pikine Nord mobilisé nañu ngir dénoncer li nga xamante ni moo di bradage foncier ci seen quartier. ñu topp ci di dox di dox quatre ans cinq ans amul tey ñu ñëw xëy ñu ne dafa am benn affaire bu ñu taxawal fi te ñun yëguñu tinuñu ñu ñëw ñu fekk ñu fi fekk muy liggéey ñu laaj ko na a hangar fi tabax mu ne soixante douze mètres carrés ak vingt quatre mètres sur carré plus de sept mètres carrés tey jii ñoo xamante ni tey ndox mi commencé naa taw fii. ba nit ñi seen kër ñu am jafe-jafe ñu bugg fi planter at beneen bâtiment bu nekk 7 mètres hauteur est-ce que loolu jaadu jaaduwul duñ ko nangu duñ ko nangu. ñoom nag ñu ngi exiger la lumière. te gatsa gatsa bu ñëwee ku deewul doo te ñun pare nañ pour fii ñun parce que ñun tam fi lañ parce que fi leen dëkk suñu am juma bu ñuy jëlee dañuy dem di jullit fajar ñu leen agressé est-ce na ay xale ndaw fii leen leen violé si site bi du benn du ñaari est-ce que loolu rafet na doodu amati booloo ci collectif sàmm moomeel pikin noor askan wi nag nee nañu duñu bàyyi benn yoon te sax ñu ngi demandé que ñu arrêté travaux yi nu mu gën a gaawee